daan mooy ay santiment yëg-yëg dafa am solo ci nit ci la orma di jóge moo tax benn borom xam-xam daane ne teggin mbir mu gaar njaru la waaye deesu ko jaay ndax buñ ko doon jaay kii wut xaalis wala mu amee nagam day xëy rek jaay ñaari nag gën di teggin waa kon ki nekkoon ca daara ji deewoo ngir bëgg amit ami teggin te moom amul lu mu jën amul amul njëgu nag kon kañ lay amit teggin <laughs> moo tax deesu ko jaay deesu ko mayeet nag ndax bu ñu ko doon mayee bàyyi bu ami teggin lool coof cofal ca doom ja wala maam mu amit teggin lool cofal ca baay ba mm-hmm. ñu ne ko lu mu doon nag mu ne waaye nag tampon lay doon ci xolub koo xam ne dañ koo yar mm-hmm. allahu akbar mm-hmm. <laughs> suba xormaa ngoog tampon bi nekk sab xol tax na nga xam nag xol nag من مصدر كل شيء إن الكلام اللي في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا واحد يعني nga لا من جوت làmmiñ jot